xam nañ ni làmb moom fi mu toll nii euh, ñaankat yi dañ ci am njariñ parce que ñoom ñooy numéro un mbër bu laalee avance ci li muy njëkk a dem balaa mu koy laal sax ci ñaankat bi la mu xoolal ko ne ko baax na jëlal wala baaxul bul jël. bu amaatee combat bu jotee xaalis ci yéen lay jëm si. làmb ñaata mbër nga ci mës a ñaanal. yàlla xam na ni su ngeen bëggee ma woo ko léegi ku koo xam ni day bëggee muut Lo la. billaahi wallaahi wa mun naa ko woo léegi ngeen laaj ko Modou Lo Eumeu Sène sarax yu ma laaj yëpp lépp lépp lépp lépp moo ko def man résumé ko combat bi ne ko Modou Lo day dóor Eumeu mu daanu ma ne ko gis nga ni doomu dàngu def waa ji combat am fekk dama doon jàppale doomu dàngu ma ne ko gis nga ni doomu dàngu def waa ji ba la Modou di def Eumeu Sène te bu Modou Lo di def Eumeu moo gën a ñaaw commerçant daa mel ni soq la dóor mu daanu de dégg nga commerçant mag la xam nga fan la nekk mu ngi El Malick des fois duñu bëgg di wax mm. lépp lu war ci combat contre Modou Lo Eumeu Sène moom moo ma ko jox ma def ko te maa ngi stade def li ma war a def lépp wax ko combat bi ni muy demee yépp xam nga loolu tey laa koy doo ko toog wax. waaw kay. Eumeu Sène dóor Modou hmm. euh, daan waaw. te dama dama ko ni combat bi du weesu euh, ñaari ñaari dix minutes ak ñaar maanaam douze minutes du ko weesu dama ko wax ne ko du weesu douze minutes mënu ko génn. te fu ko loo Lo njëkkee dóor mooy maanaam waa ji wàcc na si suuf mu jox ma ma jënd ay bëy plus de cinq bëy jox ma yi may jox ak yëpp li ma war a jox yëpp <laughs> mais mais biñ may woo midi lañ ma woo vendredi la ma woo ne ma loo gis si combat ma ko ko li ma gis si combat bi yëpp résumé ko mu ne ma luy pexe ma ne ko sàngam ak sàngam suñ ko defee mu daan mu ne ma est ne ko suñ ko defee day daan te day dóor waa ji mu daanu moom rek